pas dinañ koy faral di def sa so xamantene ne woo na rek ci yu melni ni wuñ ko sax ci ay hôpital parce que dinañu dem ci ay cimetière tel que cimetière Dangu cimetière u Touba bi voilà fàkk tëdd cimetière u Thiolène euh, ak yenen cimetière yo xamantene dañu fay oo ak yenen hôpital inshallah rabu dimanche prochain sax le poste de santé bi nga xamné ne situé à Cité Tako war nañ fa dem pour désherber waa tey de daanaka téeméeri Baye ak lu topp lañ mobilisé waaye ku ne xam na ne maanaam fédération xidmat euh, fédération des Baye li mu polarisé si ay daayira euh, toll na euh, si 66 daayira mais ñenn ñi pour tey jii dañoo dem Touba ci Mbaleme ñi ci des daal di ñëw fii ndax bëgguñoo wute suñu kàddu. Baye Fall loolu mooy rôle muy jàppale askan wi di leen liggéeyal askan wi ndax ñoom ñooy soldaaru askan wi ci ni ma ko mën a waxee ci tënk. ndax Cheikh Ibra maanaam liggéey rek la la defoon li jaamu am ci la amee li mu bëgg yëpp tamit waa askan wi dañ leen di wax ne ñu fexe di def comme ñun am yar am teggin nangoo liggéey di saytu bërëb yi mel nii comme ay hôpital di saytu yenn yeneen bërëb yi nga xam ne dañuy ittewoo ñu set setal ko loolu ñu jéem ñu cee roy ba xam li communauté Baye Fall bi def askan wi yëpp lan ko defal du hôpital bi dong lan ko defal ndax set ak sell fépp lan ko soxla bi nga xamante ni loolu bi communauté Baye Fall bi nag li muy def daka ka daan def 2004 ba léegi mais dafa am benn jamono boo xam ne dafa amoon rupture dafa amoon cassure mais comme man yàlla dafa def dama bokk si ñoom ñuy waxtaan ñu wax ma li kii ñu ni nenu si déllu si donc moom moo waral ñu jàpp bisu tay bi muy bis bu am importance si li nga xamante ni moom la ñuy def tey donc muy loo xamante ni Baye Fall yi dañu woon yoon ñëpp ni lii la askan parce que santé li ñuy wax compétence transférée la dañ koo delloo si askan wi kon askan wi ñoom ñoo war a yor seen wér-gu-yaram accompagner ñi nga xamante ni ñoom la fi administration teg waxuma mbay mi mais alxuraanul karim lañ ko ubbee ñoo ngi ne imam ka di sëtu sëriñ Moussa Ka ñëpp xam ko di poète bu mag si yoonu murit ma nga ne di jiite alxuraan ji kon doon teel a sax am nañ si ñeneen ñoo xam ne duñuy duñuy julli mais xam nañ ne alxuraan moom ñaan la te fu ñu ko wàcce taw féex doog moo fi moom daal mooy sant la